ba ba bana mën a waajal liggéey bi kon sëriñ Basiiru moo ma waxoon ne ma sànn ci ay kàddu rek tàmbalee ko soññee yi bu nu wéetee bu nu jëf fi jógee nag door a wajaat ay ay réunion yoo ca yaatal waxtaan wi soññee bi nag dafa am lu leen daan wax ne wolof day wax ne nan ko def du ne ko wax moo ko wér njëkk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 ak ci dëkki sëñ Tuubaa yi wër dëkk bi ak fa mu di nekk loolu lañ ko daan waxee ak ñi ko ku am jumtukaay joo xam ne dana ma yombal liggéey boobu daanaan lan woo niñ ko daan defee itam ñu masaan ñëw ba ñëpp ñëw liggéey bi day yomb lool day jàppandi lool bu fekk commune Touba mu ñu jiitu lañ ci war def lépp ñu def ko ca nekk Abdou Lahad Ka maire bi danañ fekk itam gouvernement bi boole noog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 في إخدام ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. bismillahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. Uh, asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. Uh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. mbokki àdduna bépp ñu ngi leen di nuyu ci ndigalul sëriñ Bassirou moom sëriñ Abdou Khadir ci turu comité d'organisation Grand Magal de Touba ñuy sant yàlla bu baax ci lim nu xeewalaate ñu toogaat fii di waajal bis bu rëy bu tedd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 kaddu yi jërëjëf kon ñu ñëw ci sëb alhamdulilahi rabbil alamin alqaa'il fi muxkami tanzilihi allazina qaala lahum nnaasu inna nnaasa qad jamacuu lakum faxsawhum fazaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allahu wa nicma alwakiil fanqalabu bi nicmati min allahi wa fadlin lam yamsashum suu wattabi'u ridwaanallahi wallaahu zu fadlin aziim wassalaatu wassalaamu alaa man bu'itha mu'alliman sayyidinaa Muhammadin safwati bani Adnaan wa alaa aalihi wa sahbihi ahlil ihsaan wa radiyallaahu an baqiyyati salaf wa xudwatil xalaf faxri diini wal watan mawlaana al abdil xadiim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 kon bis bii li ñuy wax dul istiqlaal te mooy bis bi nga xam ne cere la réew mooy boppam am na bis bu ñuy wax kat waaye màggal Tuba moo jot senegal te Serigne Touba rek moo jotoon lislaam jot réew mi ba kéefar notu fi lislaam daj fi te saa su xëyee di yokku muy jëm ju tedd ja nga xam ne ba demee ba nga xam ne Tuba bi.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 gàcceeg ñi ko yóbboon toll na ni mm-hmm. ndax kenn mës a gis ku njóobu delloo si waat la may susité si yóbbu kenn mu del si ndam di mu am waaye la ci gën a yéeme boo doon xool leetar yi nga xam ne moom la doon yóbbante ñi mu fi bàyyi bokk na ca jëwre ñoom ñu ak Cheikh Ibrahima Fati di aduduhil ayman di loxol nday juróom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 sëriñ Touba di bàyyi ko fii di tàggoog taalibe bi te ak Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne léppam Serigne Touba la àgg ci bi yëkkat bu mënatu ko supporter ngir diisu dem Serigne bi waaye boobu Serigne bi wóor na ko ne nee na ko damay dem liggéey la Rasulullaay waaye léegi ma diisuwaat fekkaat mu dellusiwaat nag àndaaleeg ndam lu rëy. wax ne lii aw si li si uridu wan faxi bi yàlla war a yaa mu xam ne ani fari mooy bis bi ñu màggal di fukk fa juróom-ñett ci weeru safar yàlla defit nag ba mu fay bàyyi ko màggal gi saa su fukk fan ak juróom-ñett accès natt bu ñu ko bu dellu siwaatee danañ boole mboolem natt bu ñu ko mos a teg tegaatu sëriñ bi te nattu yooyu li muy li muy tar tar ni ko ñëpp di yége ne la ko yége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 wax ne dañ ko séddale te bu ñu koy séddalee bu ñu bàyyi kenn xam nga ne Cheikh Issa Dieng ràññu ko na ci lool bu màggal bi masaan agsi fu ne dana fa toog ay teraanga indi ko kon loolu mooy li jëkk ci bis bi ci liñ ci war rek kon noonu la ko Serigne santaane mujj gépp itam ci njaarim noonu la ko dundee ne mosu koo jëlal ginnaawam itam xam ngeen ne Serigne Touba nag ba muy nekk njaarim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 wayu ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ko may kenn mooy woote ak dëgg ñëpp fekk si la ca waaye li yahlika man halaka an bayina wa yaxya man xayya an bayina Cheikh Mouhamadou Mountakha moom képp ku ko xam te jaxasoo moom sax boo séenee jëmmam rek danga xam ci lim ne jëmm la joo xam ne itteem jëpp liggéey Sëriñ Tuubaa la itteem jëpp jaamu Yàlla talul leneen ci àddu àddina àddina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 boo ko fekkee ci biirum néegam da ngay fekk mu yor jikki bi di jàng tala noppul sax du ko def kon kooku dara àdduna tëlu ko la tubaab bi seeraloon Serigne Touba rek ne ki gën a dof wala ki gën a ñàkk xam mooy xool Serigne Touba di ko seereel ne dara ci nguuru àdduna bi ñu ci xelam waaye moom mi itam ku jonjoo moom dara wala miinoo ko sax waaye kuy xool doomu aadama rek nga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 mooy lii xew ci jamono la muy xurriyatu taabir loola ña ko tànn muy seen bëgg-bëgg nañ leen ko bàyyee ñun liñ tànn mooy jaayante suñ digg ak Sëñ Tuubaa te ku ci jaayante ak moom ku nekkat la la indi yaa ko wax ndax yaa ko xool ba mu doy la sa digg sa borom na ko suñ bàkk bu sa waxoon nga doy ko kon lépp lu mu la diggante da ko war a gëm moom mi fi nekkal Sëñ Tuubaa nag ku ko xam ku ne xam ne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 li tere yi de yàllaa ko njëkk tere bay wuñ ko rasulullahi tere ko bàyyiwuñ ko Sëriñ Tuubaa ñëw yeesal ko nit ñi bàyyiwuñ ko man Abdul Ahad bu moo ko teree nit ñi di laqatu biir kër yi di ko def kon loolu doy na ma ci sëkk Sëriñ Saliou Mbacké itam dégg ngeen ba tàyyi muy Cheikh Abdou Khadir it noonu foo ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu wóyal ko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 kon ak Cheikh Mouhamadou Mountakha bu ñëwaatee yeesal tër yi itam kon foofu rek la tënkoon kon lañ ci góor góorgóorlu te xam ne sëriñ bi bëggul ko toroxal kenn bëggul ko xawi suturas kenn ndax alxuraan digle tere lu ci ne dafa am ay xudut walam yajus baxsun anil la sittatam fii thawbihi aw fii dukaanihi naam aw fii yadayhi aw bidaarihi maa bal kullu za kaana xaraaman munia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 ba ba ca des sëriñ ma yaa su muy jàng moom itam xam ngeen ne ñépp xam nañ cër bi amoon ci sëriñ bu demee ba àgg ci ñett ñaareel ñaareelu fan bi jëkk màggal gi itam mooy bis bi nga xam ne ci lañ jégleel waa Mauritanie ndax fonk gi leen sëriñ Tuubaa fonkoon ba fu mu mës dëkk mu wërtal leen fa kër seen këru bopp loola la sëriñ bi di dundal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 kooku kooku ne ku mbàkke xanaa ku gàtt loolu ku gudd fan loolu du ko fekke mu ne ku gàtt fan du fekke dara mu dëkk ci ay fan faatu waaye kon nañ xam ne ni ko Serigne Touba bindee ci Matlaboul Fawzayni ñëpp gis ko na na ñëpp am yaqin ci ne ne ko Serigne Touba daale noonu lay waxoon rek ne li ma sëriñ Touba dig ma gis ko lim ma dig te tegaguma sama bët laa gën a gëm ne ko bu ma yoroon kaasu kafe.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 nit ñi dana jafe ci moom mooy bi romb diggante kër Cheikh Mamadou Fadil ak kër Cheikh Abdou Lahad ak bi romb kër Cheikh sëñ Cheikh Mamadou Lamine Bara ba dem ba kër sëñ bi fa am ñaari yoon yooyu xam ngeen ne dafa bokk ci mbedd yi gën a jege jumaa yi te gis ngeen na waaye ñi ngi dalal seenum xel ci na danañ ko dindi ba mu set ñu defaraat ko wax naa leen tey jii ne lu mu xat-xatit nañ Cheikh ba defoo ko nit ñi mën faa jaar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 timis jaa ngi bëgg jot kon ñu ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di ñaan bis bii ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te daje ceeg tawféex daje ceeg ngërëmu Serigne ndax dégg ngeen ba tàyyi Serigne Saliou mbakki di wax ne Serigne Touba nee na ñaar buñ dendee kër kii di ko màggal kii di ko ñàkk màggal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 li ñuy dundal ci réew mi ci wàllu social itam am na solo ndax bu ñu xooloon màggalu Tuubaa bokk na ci li indi ak dal ci réew mi ndax màggal gi buñ ci àggee mënoo xàmmee kii ci xeet yu la bokk wala kii ci xeet yi la bokk ñépp ku agsi ku ne da koy jàpp si jëmm jàpp ko bokkal ko ku raw ko bokkandee ak bàyyi bokk ci itam li nga xam ne màggal gi dana ko indi mooy wàllu jaamu yàlla gi tam mooy ci jiitu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 te xam ne li yunfiq zu saati min saatihi wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq ma aatahu llah kon xéewal ku ko yàlla defar na nga xam ne bokk na ca la la war ngay dimbali sa mbokk jullit rawat na sa mbokkum taalibe rawat na sa mbokkum dëkkoo kon sëriñ bi ci soññee di ko digal ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf kon ñu nangu ñaan ginnaaw bu ñu déggee déclaration bi noonu muy lépp jëm ci waajtaayu bis bu tedd bi ne suñ kanam di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi nga xam ne Serigne Touba noonu nag képp koo xam ne yaa ngi bëggee bis bi ñëpp ñu maase dégg ko te wàññi ko fukk ak juróom-ñett kon waajtaay wi lépp mi ngi jëm ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon lu nit mën a def daal bis ba taxoon seen mooy fukk ak juróom kon ñu waajal ko te xam ne première safar ak kon euh, sëñ Jili euh, ñoo ko déggandoo ki nga xam ne moom mooy porte parole euh, xalif général des Mourides di sëñ Bass Abdou Khadre kàddu yi nga xamante ne moom la doon yëkkati jëm ci wàccaayu màggal gi waaye itam ci war may dëkk bi bari na ponk yu bari yoo xam ne tey laal na ko dellusiwaat yi est-ce que tey ji bàyyi nañu xel ci wala ci li gën a am solo tey. lan nga ci jàpp. waaw ni nga waxe fànn yu bare bàyyi na ci xel kon mu mel na ubbi na ay. jotaayu yaatoo yaatu ubbi na jotaayu yaatoo yaatu yoo